alaaji Mamadou Mbaye en retraite fer yàqu semaine fer neexul a defaraat ni ma ko gisee ka man da ku fa dem taxaw fa ku la ne àdduna dina tukki nga gëm ko hmm. ku dem semaine de fer ku xamoon semaine de fer bu njëkk ba hmm. nun ña fa newoon hmm. dem fa léegi boo fa demee taxaw fa di nga naan da nga di nga ku la ne àdduna dina tukki nga gëm ko mais ah, train baa léegi. ah train bi dawul daw daw xam ne. te ba fa mujjee. Hmm. maa nga fekk ñax ma sax fa. Hmm. imprimerie. waaw. moog bureau central traction ñoo jàkkaarloon loolu yëpp ay yooyu yëpp di am ñax. Hmm. di ab àll kenn newu fa. bâtiment yu widd. moom fa mujjee. tey boo demee tekk lay dem. boo ah? dara yënguwul. mais de fer la amoon bari na. chemin mm-hmm. de fer amoon na euh, service waaye bâtiment. Mm-hmm. amoon na manga amoon na euh, approvisionnement mm-hmm. amoon na comptabilité. amoon na service di gen amoon na dispensaire amoon na chemin de fer daal manqué wul woon dara mm-hmm. dara noonu jëy dara loo bëgg mu nga woon chemin fer